Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la conférence de merci de de like, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir au nouveau les gars, et chaque fois de partager gagner information. Box sénégalais fait e folle maintenant, 14 régions du Sénégal à World Cup. Nous les gars, folle, nous sommes également chez l'hôpital et sécurité de février. Nous sommes bonnes fois c'est le bok nous verrons gamme. Nous sommes chez Kassé, nous avons aussi erreur judiciaire, guignons nous de foule mon info, nous sommes bonnes guignons l'info, de l'ouad l'en Sénégabot, nous de l'ouad nous sommes bonnes kharelen à Djenefida aussi gars et nous. On avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité, on continue gars yi actualité ñu fa seen waxtaan yi xam ne Aliou Cissé ak li nga xam ne équipe nationale bi ndax day ubbi bunt yi wala du ko ak ñan la ñu ñemeeku ne war nañ ci a bokk loolu daal la ñuy fas idi indi ay leen ko jëm ci li nga xam mooy éliminatoire yi war a ñëwaat Sénégal war cee bokkaat mais laata boobu dañuy dem ci yenn kaay bi suñu lomb ci o gu njëkk wax ne également diggante kii di Bombardier ak Tapha Tine ndax kawo mën na ci am ki xam nag mooy Jibril Kandji moom di coach box nee lu nekk mën na ci am Gris Bordeaux nag demoon ci open press bu xam ne mooy donc bébé Diène nee na nag fi ne ni waa Médina dañu war a juboo nekk benn yenn kaay bi di record yoo ne comité exécutif moom dafa daal bañ li nga xam ne mooy cinq millions o leen Augustin Senghor jox ci li nga xam ne mooy retombée coupe loolu daal la ñu fas yéene wax aussi li xam ne mooy donc lii suñu gaynde yi nekkoon ci CHAN bi ba ba léegi yéen kaay bii di Tribune Sport ñoom ñoo gagné ñi nga xam mooy Lakers points fanweeri points ak juróom-ñett la dugal am 10 rebonds si euh, juróom-benni paas loolu daal la def ci jongante boobu moom nga xam ne mooy le la relève de la NBA ey waa Turquie nag gars yi dañ ne équipe bi nga xam ne nag foofu la Christian Atsu nekkoon ñoom nag euh, dañ leen di may ñu daal di desaat ci euh, fa nga xam ne mooy donc ci ligue turque ligue un des ci ñoom daal loolu lañ leen daal di jagleel insolite bi nag mooy benn waaye bu nekk ca France moom daal moo daal di jël di mbubboo ne moom mooy Pape kii di euh, Kylian Mbappé di woote mairie bi fa nekk pour wutal ay këyit ay algérien yu nekk foofu waa nag dañ ko daan daal ba mettre lañ ko daan pare jox li xam ne mooy tax ñu xam nekk mooy monote électronique yooyu ñu def tànk yi kii nag Mason Greenwood gannaaw bi nga xam ne seetal nañ ko ci li nga xam moo amoon ci digganteeg corom jooju jigéen ñeneen football nag ca Manchester United ci jigéen ñoom nee nañ bëgguñu kii Greenwood daal di dellu noonu ci équipe bi nag nar coow ay nak yeen yi nga xam nak nag seetaan ngeen ah wala dégg ngeen coupe du monde bi amone 2002 mille Sénégal ñu dal ko éliminer Turc juste yi doon leen éliminé ki nga xam nak moy mo dugaloon bi wo Ilhan Masturk nee na nag maillot bi nga xamne mom la dugalee won boobu da koy def vente aux enchères ngir jàppale ñi nga xam nak lool di euh, suuf si yëngu ca mm, Turquie da leen indil ay torof torof lii nag gars yi matchu Ligue des champions yi wara am donc ci nga xam nak moy euh, tay ji lay tàmbale ngeen gis ne nak Simba FC bu ñoom Pape Ousmane Sakho day dem dajé ji ak nga xam mooy donc wa Oraya donc ba nek ci euh, Guinée club bu Khadim Ndiaye Ndiaye donc xam nga Khadim Ndiaye ki ngeen gis également di jour boo xam ne mooy légende la foofu noonu du côté de la République démocratique du Congo muy euh, ki nga xam ne nag mooy Mputu ah, donc Mputu moom jamono ji dafa daal di dakkal li nga xam ne mooy carrière internationale am ak waa ñi di république démocratique du Congo ki nga xam nag moo yore reg-rag moo jur coow ci Afrique ndax jamono ji na gars yi moom gannaaw bi mu defee nag euh, coupe du monde bu garaaw a garaaw bu yéeme moom ñëpp jàppoon nañ ne waroon na mën a bokk ci nga xam mooy meilleur entraîneur yi finaliste yi mais dañoo gis ne euh, bokk ci gars yi nag jàpp ne wàllum ségrégation la ndax ki nga xam ne mooy donc euh, kii di Guardiola ak également entraîneur bu Argentine ak aussi bu Real de Madrid ñoom daal lañu tànn ne ñoom ñooy ñi finaliste meilleur entraîneur de l'année loolu nag jur na coow man nag d'accord naa sax si Real de Madrid avec Argentine mais Guardiola quoi qu'on puisse également mën nañ ko remplacer ak a ki kii di rek raagi loolu sama gis-gis la Cristiano Ronaldo nag match yi xam ne gars yi moom la dugal li xam ne mooy tolloog ñeenti bi lu mu néew néew match yi yëpp gis ngeen ko contre Racing Santander Séville Elche yëpp daal booy seet daal li xam ne mooy donc contre Espagne si ëpp la ko dugal muy contre kii ah, championnat espagnol meilleure défense yi nga xam ne nag moom lañ am ci saison bii nii ci défense yëpp Newcastle Naples Lens Arsenal Real Madrid a euh, dëgër euh, ki mooy donc Roberto Carlos la légende Roberto Carlos arrière latéral droit bu arrière latéral plutôt bu ñëw ci kii da ngay toog Roberto Carlos nag moom moo demoon seeti ca Maroc ñi nga xam mooy donc waa euh, Real de Madrid notamment ñoom Rodrigo ak ñoom Vinicius Junior ki ngeen gis ni aussi ngeen xam ko muy daal ki di donc le joueur du Bayern de Munich ah, mom fi ni Dal, dañ ne wa Real de Madrid donc ñoo ñoko soxla tamit di xalaat xol na lañu fexé dal bu dal di koy recruter Kingsley Coman bu fekkee ne dafa bëgg a Bayern Real de Madrid également nee nañ ki xam moy Raoul mom positionné wu na pour remplacer ki xam moy Carlo Ancelotti bu fekkee ne eh, dañuy dakkal li nga xam mooy liggéeyam Carlo Ancelotti bi nga xam nag jamono ji Brésil c'est président fédération sax dafa bëgg dem Real pour waxtaan ak Ancelotti ñu mu mën ñëw yor li nga xam moy équipe nationale Nacional Brésil ki nga xam ne nag moom mooy Joao Félix moom nag nee na actuellement bu fekkee ne waa Chelsea dañ ko bëgg a bu saison bi jeexee il faut que Chelsea waxtaan ak li nga xam mooy Atlético Madrid parce que moom euh, li nga xam mooy àll bi amul option d'achat donc moom bu ñu jégoo seen biir moom tamit mu gis ci boppam amul benn euh, problème ki ngeen gis ne également di Roque di euh, brésilien moom nag fi mu ne nii waa Barça ñoom dañ cee mooy nee nañ bëgguñu booy bi rëcc leen comme ni leen Endrick rëccee dem ci Real de Madrid moo tax ñoom daal ñu ngi jël seen jumtuwaay yëpp pour daal di matal lu ne mel booy bi sax moom def na ab waxtaan dégg nañ ko ci ak entourage am ne moom daal fi ni Barça rek kese Barça ba tey wax kii di Jordi Alba dafa am benn waxtaan bu mu amul ak ay taskatu xibaar ñu laaj ko ne ko yow nan ngay Espagne titulaire ah ki xam mooy Balde nekk sa remplaçant Espagne boo ñëwee Barça yow yaay nekk remplaçant Balde nekk titulaire mu ne loolu nag ça dépend ci ak système bi ak nekk la entraîneur bëgg moo tax ñu doxalee ni ñu mel ki nga xam ne mooy Ousmane Dembélé malheureusement euh, na lay mën a dellu si ci li nga xam ne mooy donc compétition bi Udmingson nag ñoom la ñu tànnaat mu nekk meilleur joueur asiatique ah donc en Europe moom mi mooy nekk meilleur joueur asiatique boo xam ne day évoluer ci Europe bi nag mooy nekk huitième fois mu koy gagné maanaam juróom-ñetteelu yoon mais bi mooy juróom-benneelu yoon sixième fois mu daal di koy euh, tegle donc de manière consécutive kii di Udmingson lii nag gars yi nag ngeen gis nii moom moo nekk li nga xam ne mooy donc lii di euh, quart de finale bu Coupe de France bi war a commencé euh, lii di vingt huit février la war a commencé ñaar fukki fan ak juróom-ñett Marseille nag Annecy lay dajel Lyon Grenoble doon Toulouse Rodez lay doon Nantes ak euh, Lens Lens mi nga xam ne moo mujjee doo ñi nga xam mooy donc Lorient bu ñoom Ahmadou Bamba Dieng donc li nga xam mooy donc top club yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ay buteurs yoo xam ne bokkuñu gis ngeen ko Marseille nekk ci kaw Atlanta LOSC Napoli Valence Leipzig Bayer Leverkusen ak Wolfsburg ñoo nekk ci kawa kawa kaw li nga xam tamit gaay mo moo jëm ci li nga xam moy donc li di euh, Lionel Messi mom nak wax nañ leen ko contre Bayern Munich worul mu daal di jouer loolu nak nek ap euh, lo xam problème lay doon gannaaw bi nga xamee ne fi mu ne nii euh, Paris Saint-Germain nekkul situation bu baax a baax baax mais du mom kese ndax tamit japp nañu ki nga xam aussi moy donc Kylian Mbappé momit worul dara dara dara mu daal di jouer contre Bayern de Munich mën na sax am mu bokku ci liste bi mais bokké ci liste bi pour jou pour jouer rek la fukk ak simi li la gaay wax 15 minutes mu may ko temps de jeu mais gëmuñu mu wër complètement voilà bobu de même que xam ne aussi mooy Achraf Hakimi mel na tamit moom xam nga moom Kylian Mbappé dañoo jege ni moom it tamit ah match contre Monaco bi wóoru mu daal di jouer ndax gars yi jàpp nañ tamit moom gaañu gaañu tamit lay commencé di yëg isco janvier yi tamit lay yëg benn douleur benn métit boo xam ne daal gars yi fi nii nee Monaco wóoru moom mu daal joué wax nak ci nga moy donc Aliou Cissé El Tactico Aliou Cissé sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal Sénégal nag gis ngeen parcours bi mi def jël coupe d'Afrique dem coupe du monde ñu éliminé ko deuxième tour ñu door ñu ñetti bal ci dara ah, Fofu nak la fa feñ moy que ne ñi de Angleterre dañoo ëpp efficacité mais aussi dañoo mën ci système yu bari. Aliou Cissé nag fi ni ne nii demaat ci yeneen échéance yoo xam mi ngi waji a wat ci mois de mars bi ni. ñuy wax nak ndax Aliou Cissé day ubbi buntu bi permettre ay joueurs ñu dugg Lool nak na ci def njàngat parce que actuellement équipe nationale du Sénégal du ñëpp nek en forme notamment suñu défense bi suñu attaque bi suñu milieu de terrain

dugal ay bi yo xamné ko amul fit ko amul confiance doko ko momi nga xamné aussi il est passé par jambar fa lañ ko formé mu jógee fa dem tukki ñëwaat jaar Teungueth FC et tout Pape Ousmane Sakho donc aujourd'hui est-ce que Aliou Cissé dina ko jox opportunité ci li nga xamné moy donc jëm ci lii di donc euh, échéance yi ñuy jëm jongante Sénégal wara amal mu daal ci mëna jouer loolu nak ab laaj bu ñu samp la jëm ci lu ni mel ak taxaway bo xam nak yakar nañ ne war nañ ko mën am de même également ki nga xamne moy donc Lamine Camara Lamine Camara moy révélation bu génération foot bokku na ci révélation bu génération foot mom nag nga xamne ne jamono yi xaatim na contrat bi du côté de Metz waye tamit yóbbu nañ ko gannaaw bu mu jëlee CHAN bi fa nga xamne nak moy donc Coupe d'Afrique U20 mu war fa jouer Lamine Camara nak nga xamne juroom juróom yoon jox nañ ko homme du match ci li nga xamne nak moy mooy donc euh, lépp ñet yoon jox nañ ko homme du match ci li nga xamne moy donc jonganté yi doon am ci fofu CHAN bi momit nek jeune bo xamne tay mi ngi top ci tanku ñom Pape Matar Sarr tout mo tax ñu jàpp ne momit est-ce qu'Alucide Godior tend le jeu Mais aussi, on parle de Sidibé. Sidibé également, le l'arrière latéral. Boy Pigin, bi nga xam ne mi ngi football TFC, TFC. FC, moom nag jamono aussi gars beaucoup de na ci joueur yoo xam révélation lañ surtout ci côté droit boo xam aussi am nañ fa Sabali ah, mais aussi bëgg nañ ko renforcer renforcer étant donné que Bouna également mon mi ngi soog reprendre et que boy mi ngi ci forme te aussi d'autres coup franc bu baax la booy bi il fait de bonnes passes il forme de bons centres moom it war peut-être am occasion ñu may ko mu daal di wane boppam ci lu ni mel donc Sidibé bokk na peut-être ci nga xam ne Aliou Cissé bu fekkee dafay may chance jour locaux yi jàpp nañu war na ko may chance am également ki nga xam ne moom kenn doot ko présente Cheikh Oumar Ndiaye wax naa ko boy bi moom c'est la constance boy bi malgré sa taille c'est un excellent défenseur il peut jouer défenseur mën jouer défenseur mën jouer milieu de terrain mën jouer également arrière latéral parce que dafa polyvalent et dafa mën a football boy bi le capitaine de Génération Foot mais également de l'équipe nationale ah, donc locale bi ni bokk na ci capitaine yi ci équipe nationale olympique bi aussi bokk na si li nga xam mooy capitaine yi donc moom it occasion la yoon la ci moom mu ñu daal koy may chance am mu dëkk a wane boppam bu baax a baax ci li nga xam mooy jongante yi nga xam a am pour xam ne gars mais tamit ah dañ ko bàyyi xel ci li nga aussi mooy Lissa Aliou Cissé bi di Sané Sané joueur bu Guédiawaye FC l'arrière latéral droit également ah, moom def li nga xam ne donc lii di compétition bu exceptionnel ah, donc moom comme Sidibé rek Sidibé à gauche ki nga xam ne mooy à droite sànq maa ngi naan Sidibé à droite Sidibé à gauche plutôt année à droite ñoom ñaar ñi ngi xam ne di def liggéey bu am solo mais aussi qui di Samba Diallo Samba Diallo bi nga aussi gars yi moom beaucoup de révélations ci révélation boo xam ne gars wax est-ce que du ñëw Samba Diallo bi nga aussi moom finalement mu ne nii ci leaders yi nga xam ñoy ci U20 yi mi ngi ni demande ci nga xam moy donc l'équipe du Coupe d'Afrique bi gannaaw bi mu gagné tournoi UFOA bi ak ñi nga xam moy jeunes yi donc moom peut-être que Aliou Cissé buy jéem a équipe bi ci yene possible yi mën na ko jox opportunité donc lool nak ci capitaine bi ak également hein, ci nga xam plutôt ci Aliou Cissé lay dépendre Moussa Niakhaté également probablement dina def retour am mi nga xam dafa blessé woon Aliou Cissé woon ko pour mën ko permettre mu bokku ci équipe nationale du Sénégal amoon na blessure reprendre entraînement yi euh, momit amna possibilité d'aller ñew ci jamono jo xamné ne fi ni suñu défense bi amna problème parce que Abdou Diallo aussi blessé de Costa aussi manque de temps de jeu Koulibaly également joué entre autres donc Moussa Niakhaté bu ñewé day yoxu concurrence bi et je pense que ne Aliou Cissé aussi dou hésiter pour daal di koy woo mais aussi ki ma gëna a yaakaar ne aussi bokk na suñu wara mëna wo moy ki donc Mory Diaw bi nga xamné actuellement amul gardien bu nek équipe nationale Sénégal bu ko mën jamono ji amul gardien sénégalais bu ko mën jamono ji ci équipe nationale parce que mom mi ngi def saison bu baax ak équipe clairement bu di am ay clean sheet def ay arrêt bokk ci meilleur gardien yi Monolim lim tey France ci cinq mille gardien te joo si Mori je pense que aujourd'hui opportunité la Aliou Cissé relancé ko ci mën yoo ki nga Edouard dafa blessé Alfred Gomis aussi dem na ci club boo xam ne 2 Italie. Donc, le nous l'Union va tenir en compte le gars. Donc, c'était les informations que je voulais vous donner. Hein. Toujours un plaisir de vous servir. Oui, lundi like, vous lundi abonné. On avance ensemble dans la magie de eSport TV. Djokhalen Senkhalat aussi, Gen Gen Également, surtout, on abonne, on s'abonne, on s'abonne, gars. Ya Gen Jeff.